mais yow ay affaire reewande donc ci ngay dox yow Khalifa Niass yow kilifa gu ñàkk fayda romba nga ko foo toll nag yaa ngi waxee ak nit yi di leen jox ay code di leen jox ay code di fa wax ay wax bay wax waxi Mari bajo yow kilifa gu toll na yow di wax ay waxi affaire Badio Mari Mar Badio nga wax kay parce que bana boo waxee naan yéen jigéen ñi xam ngeen ko yéen góor ñi xam ngeen ko te naan waaw xaw ma lan seen day seen gémmiñ ñi xaw ma yow yow vrai imbécile nga yow Ahmed Khalifa Niass dégg nga ba boo waxee ñoom nag ni sénégalais yi di am lu ñuy expliquer waaw kilifa la yenn saa yi nga gis kuy génn naan dañuy saaga suñu kilifa diine yi daal di indi exemple indi exemple ni ni ni Sonko daa saaga kilifa diine yi indi exemple ni xali Ahmed Khalifa Niass la sa dossier bi nga xamante ni moom la ñu yor Lac Rose Sonko daf koy teg ci kaw taabal bi xaw ma def koy njëkkee xaw ma def koy mujjee loolu moo taxoon ma voteel Sonko ñëw fii naan dafa léegi ñii tarixa yi lañu nitu tarixa yi lañu loolu amul ci réew mi de dégg nga gàmm gi démb la asalaamaaleykum xam nga comme maanaam sant Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam moo ko tax a jóg dégg nga kon yàlla sant bi yegg lépp lu fay seytaane yàlla xam na ko malaaka note nañ waaw yii te lu danger nag lu danger la waaw dafa xam nga doo nekk di dugg ci affaire mbiru jàmbur ak yooyu mais nit ñi lañ cay jëfee nit ña fay dem jëf yañ fay jëf loolu dafa garaaw quoi daanaka mënoon ko bañ ko woote moo gënoon waaye faw ñu woote ko buñ ko wootee ñu mel ne Ahmed xalifa Niass bu ñu ñëwee di fa wax ay waxi dof wala wax ay doomeraam nit ñi noonu lañ leen ñu xoolee loolu mooy dëgg dégg nga fii kenn terewu fi kenn mu def lenn waaye doo toog di wax say wax yu ñàkk fayda te yow ndox si ndaw si ci boppam moo def ojo ni yow tëddee nga ko yow aji Sarr nee na yow tëddee nga ko kilifa gu toll na yow ne Sonko dañ ko takkal dong te ki ko def mooy Mamour Diallo ak ñeneen ne ne yéen ngeen ñëw di ko rang di ko tëddee gàcce googu noonu moom moo la jàpp yow yow Ahmed Khalifa nga damay wax ak yow comme kuy wax ak xale bu ndaw parce que ni ma gisee nga koy réactionné ak di ko def ay nit toog di la déglu nañu toog ñu déglu li ma lay wax parce que ñoom it ay imbécile lañu parce que ñu doon góor yàlla bu fekkee ne diine bi la ñu woo ñoom loolu moo leen taxaw na jóg dañuy woo kaaw ndax yonent bi nee na fépp fu ñuy waxee waxi ay caaxaan ak di baag bàyyi din di wax nit ki fekkewu ko nee na nga jóg nga dem en tant que jullit ngeen toog ci ginnaawam di sëggali loos naan suñu kilifa diine yi ku fi wax naan ay Ahmed Khalifa Niass ñu toj sa lu bon bu leen ñu fontoo once again waaw dégg nga bu leen ñu fontoo yëpp ngeen sénégalais yi trop maa ngi kii sax ah maa ngi tàng yéen a may tàngal quoi waaye yow kilifa gu toll na yow saa lu ko neex mu wax te dañ koy jël di ko yóbbu ci tele yeeg yooyu dégg nga sénégalais yi tànn exemple ak yooyu ñoom dañuy dem tànn ku néew doole wala ku ñu yaakaar ne da ñàkk ñu bëgg a profité ci yow moom la ñu ma bëgg def même même même moom la ñu bëgg a def ci Oumar Diagne mais du jàll bu soobee yàlla. waaw jàpp ngeen ni gouvernement bi maanaam ay ndomba tànk moo gën a moo gën a xaw a suufee lépp dafa connecté wu yéen tarixa yi dong yéen a fi nekk di luube barki démb euh, euh, ta kilifa tiijaani la ci wàllu euh, Cheikh Omar Diagne ak mbirum réew mi maanaam maanaam bien neetaru sénégalais yi dara ñoru leen ci parce que ñoom li ñuy am am nañ ko moom kilifa googu li muy am am na ko yaayu première dame ci gouvernement bi moom lay sëyal kon li muy am am na ko moom ci teraanga sama village boobu noonu fi ñuy séentoo bato yi moo ko dem jënd fu rafet fu aria moom moo ko jënd moom euh, paa bii nii moo ko jënd village u jàmbur nga ñëw foofu jënd seen loo xam ni fa la ñuy dem di fa féexloog yooyu nga dem jënd ko te gars yi duñ la ko jaay lu dul sëriñ nga moo tax noonu lañ la koy jaay lu ñàkk fayda lañ la koy jaay te est-ce que war nañ la koo jaay maanaam ci dex gi la nekk ñu ciy séentoo bato yi mooy làmp pilote bi ñu ne ma foofu village bu ndaw bu rafet boobu noonu yow yow yow sëriñ bi yaa ko jënd ci nguuru Macky bii nii ci nguuru Macky Sall bii kon yéen da ngay ñuy enregistré wu ci senegal bi ci alalu askan wi moo tax dara lislaam noir du fi dox fii sunna moo fiy dox gëmuma lislaam noir man man lislaam bu bu leer nañ moo tax lépp dafa symboliser weex tàll man moom laa gëm Ahmed Khalifa Niass moo ni tarixa yi lislaam noir la maanaam yéen seen baay yi ngeen ñu ndamoo seen baay yi ngeen moo teg tarixa yi xam nga am na ñu leen fi jiitu woon mooy dañoo ànd tubaab yi ñu teg l'islam noir moo tax yéen ñi nga xamante ni ñu bëri ñi nga xamante ni ci yéen la ñu bokk dégg nga du ñu jé du ñu baale xamuñu baale te l'islam noir mooy l'islam noir moo doon doo baale même nit ko bu la waxee doo baale dégg nga te l'islam bu set bi bu weex bi boobu nit dalay def loo xam ni dafa garaaw a garaaw yonent bi rey nañu doomam fii ci kanamam ak yeneen ak lan moo gën a garaaw loolu ah, bu ko neexoon tukkal àdduna mais est-ce defoon na ko ngeen nekk fii yéen di woote loolu ba noppi di ci profito sénégalais yi yeewu leen ci biir yooyu la ñuy profito di xool nu ñu nappee te ñoom ñépp ñu ngi napp gouvernement bi naan dañ ko voteel voteloo ko waxoo dëgg yëngal nga Aras Ahmed Khalifa Niass yow du ñu dem ba campagne ñu nekk campagne nga ànd ak Amadou Ba naan Macky sàll gëmmal dóor te te naan moom la ñu vooteel waxuloo dëgg bu fekkee ne nag da nga koo teg ci wàllu jaam nga yor ay jaam nga yor yow même voté woo mais jaam yi voté nañu xëy na foofu mën nga fa wax dëgg xëy na foofu ngay waxee bu fekkee foofu ngay waxee nag amul problème ndax ñoom dinañu nangu ñoom yow ñoom nga nga seen vote ñu jox la ko yow nga la ñuy waxal te yow yaa leen doon contre ndax ñoom dinañ ko nangu loolu nag ku ko nangu ba xam ni yow jaam nga te loolu mooy dëgg waaw loolu mooy dëgg ma defar lii man naan sama café kilifa yi ñoo fi nekk di ruube de yéen yéen yi dof dof lu di jéem a fatt fattulu seen nopp ñoom ñëpp a ngi dóor waaw ñoom ñëpp a ngi dóor tuubaa kan moo leen yëpp te jox nañu seen porte parole ba noppi ay taaliba génn weddi loolu bu doon ne loolu noonu ñorul beneen ko beneen sens bi la sëriñ bi kon génn na réglé ko ci saasi laa la kon ni mu doon daggee bracelet yi mais xam nga comprendre nañu du ñu ay dox ñaseen bi am ñu ci jël teewal jël dégg nga yéen kon gouvernement bi dafa mel na problème yi commencé gul mais yéen yéen a commencé am problème te koo ci dugg këram. xoolu leen sax yéen kilifa yi ndax sénégalais yi ñu ngi lekk ba suur wala ñu ngi naan ba màgg koo ci duggu këram mi ngi yor magasin wu lekkam ak magasin wu naanam tëj yor ay otoom gaare ah yor ay këram yoo xam ne ay remote control moo koy daw mooy dawal mooy yëkkati euh, kii bi mooy yëkkati frontière bi mooy yëkkati frontière bi ay remote control dégg nga ma mooy euh, euh, commande télécommande mooy yëkkati seen frontière yi ñuy toog di lem-lem di di di nan ni di def ni di def ni di sol yu bon di dox ndank ni dégg nga fekk na ñu ngi alalu askan yi gouvernement bi ngi sacc di ñew di len tour talibé yi yenn talibé yi def dorog ak trafiquant drogue di recc ci rew mi di ñew di len tour motax ñu am lu bari lolu sen di dundu nice li mo fi am de nax amu ko ko te li mi ngi kay wone te yalla mi ngi lay ñu won ay signe rek ñun ñu ngi jël rew mi sénégalais yi xif ñi dee ci gaal gi kaasuñu boobu ba léegi lan nga dégg ñu koy kaas ah lan nga dégg ñu koy kaas maanaam lu ñu waroon dugal fu ñu leen waroon dugal fii kii fay na kii fay na nangam moom moo ko mujjee fay dugg na fi loolu rek affaire u mooning mafia ngeen di ma diine la